nataal fanweer ak juróom-ñett balaa yéeg asamaan bi mu dekkee yéesu digoon na leen delseem xaritam yépp wax nañ ci delseem tey gaay kirist yi dëgg ñu ngi xaar delseem yéesu dina dellusi ci boppam pour dajale ñépp ñi bokk ci moom ñuy dund baa ñu dee ñi dee ñi dinañ dekki ànd ak ñuy dund wéy ànd ak moom bésu mbég bu mag lay doon ci kaw asamaan waaye def leen ndànk yéesu dina jël rekk ñi ko topp te yaakaar ko te di ko doon xaar ak ñépp ñi ko nangu ci xol bu set wicc ni musalkat ñooñu rekk ñooy toog ak moom ca kaw asamaan kenn xamul kañ la yeesu di delsiwaat waaye yéesu nee na nañu ko waajal te taxaw temm di xaar delluseem delluseem dina doon waxtu bi nga xamul ndaxte ñu bare dinañ am mbetteel ci bés boobu ñii di liggéey ci tool yi ñii ci marché yi ñii ci néegu ñax yi ndaxte ñooñu parewuñu yéesu du leen mën a jël ndax yow pare nga gàttandu yéesu buy dellusi